aywa Chérif euh, xibaar yi ci wolof nag euh, ñu doore ko ak sànq li ñu doon junj muy dialogue national sur la justice tey jii ci talaata ji ñaar fukki fan juróom-ñett ci weeru mai lañ ko fas yéenee bu fii ci Ndakaaru. Diomaye Faye mooy président bi nga xamante ni kon. Hmm? ma ne président Bassirou Diomaye Faye moom mooy président ñeenteelu édition bu dialogue national bi ci CICAD bu Diamniadio réforme ak modernisation justice moom mooy thème bi eh, sànq dégg ngeen ci leeral yeeg euh, Ousmane Diagne muy garde soo ministre de la justice ci objectif yi ak yéen a jën am ngir joyanti justice fii ci Sénégal li ko jiitu sax démb ñoom kilifa yooyu daje nañ euh, ca barab ba mbir mu war amee ngi ak waajal lu ni mel ci euh, teewaayu professeur Babacar Guèye moom nag moom mooy facilitateur bi directeur cabinet bu président de la République Mary Teuw Niane fa woon rapporteur yi président yi vice président yi ak ñi jiite yooyu commission scientifique ak mbiram organisation bi ci mbir mi naka lay demee. ñuy fàttali ne rek directoire bi nag am na ay borom xam-xam yu ca nekk muy ay kilifa ci réew mi ay avocat ay universitaire ay magistrat notaire ba ci membre yu société civile bu sukkandikoo ci communiqué présidence bu nga xam ne ci seen page Facebook wàllu justice ba léegi ak homme d'affaires bi di Doro Gaye moom nag big ba léegi mi ngi ci loxoy yoon euh, section recherche bu gendarmerie ñoom ñoo ko arrêté placé ko en garde à vue danoo jàpp ni que mbiri bàyyi di suuf lan koy toppee lu toll kon ci benn milliard ak ñaar téeméer ci ay millions buñ sukkandikoo nag ci journal Libération moom nee na Macky Sall la ci joxañ baaraamu tuuma moom mi nekkoon président de la république ndax moo ko jox baay yooyu ngir ñu jaay terrain yi ngir ay mission yu ñu tuddee mission secrète yuñ ko dénkoon daal mu mën ko caa lijjanti moom mii di euh, Dora Gueye ñu waxit ci ba jaxate moom ak imam Cheikh Tidiane Ndaw démb lañ leen doon atte euh, dinañ leen létt wala ñu firi leen rek ñetti fan ci weeru juin bii ñu dëgmal euh, ci euh, verdict bi procureur bi moom bu sañoon ñu tëj leen juróom benn weer yoo xamante ni tëdd kaso alamaan leen téeméer ci ñaar fukki junni muy cent mille francs ñu wax it maître El Hadj Diouf seen avocat di ngeen déggaat réaction ci wolof pèlerinage à la Mecque muy ajag ak màkk gi démb privé yi moom commencé nañoo yóbbu seeni ujaa ci bu dee nag délégation bi la euh, fanweeri fan ak benn ci weeru mai bi kon vol bu njëkk bi ci lay dem dingeen ngeen seetaan it reportage bi nga xamante ni am na ci euh, foofe wàllu accident tam ñu wax ko rek ma nga xewoon fële ca Kaffrine euh, benn camion ak auto sept places ñoom ñoo daje ab bébé bu am juróom-ñetti weer moom ci ñàkk bakkanam am na ay blessé seen lim toll ci juróom-ñeent ñoom am jafe ci route nationale bi tolloo ak mbirkilaan euh, ñu waxit ci basketball Africa League. jërëjëf 7h32 euh, ak Aliou Cissé rek xam naa dinañ ci ñëwaat mooy. regroupement national beeg incha allah ci kanam incha allah dina dina gën a yaatu booru 8 ñu àddu aywa léegi ci xibaar yi biti réew yi. xibaar yi biti réew yi Chérif dañu koy dooree ak euh, Mali. Euh, armée ba muy euh, forces armées maliennes waa Fama def nañ benn communiquer nag ne ñoom fayu nañ ci song gi nga xamante ni benn euh, groupe jihadiste nga xamante ni ma nga ca Katiba Masina bu groupe de soutien à l'islam ak musulman jege lool Al-Qaïda defoon leen ban fayoon nag dafa mel ñoom dee nañ boobu nañ ca ñoom ay doomu aadama yu bëri victoire boobu nag nee nañ yenn saa yi nag doon nañ filme ay fayu goo xamante daal am na ñu ko ñaawlu Côte d'Ivoire. bu ngeen saaganoon kii di Alassane Dramane Ouattara dina am ñeenteelu mandat en tout cas mooy yéene partem di RHDP rassemblement des oufettistes pour la démocratie et muy liggéey boo xam xamante daal jàpp na ni président bi liggéey na ko ban daje nag ci Sofitel bu euh, Abidjan ci lan daal di xamle ne daal moom mooy candidat naturel bu parti bi Côte d'Ivoire war nañoo amalaat élection présidentielle ci octobre 2025 République démocratique du Congo barki démb yeewu nan armée am ñu fa doon nas coup d'état boobu nag euh, nee nan yoon waa bitim réew génnewuñ ci seen loxo rawatina ay nasaraan ban xoolee image yi nag gis nañ ci ay doomi Amérique ba tax na kon enquête ba gars yi ñu ngi koy wéyal Tchad it euh, am na gouvernement bu bees ginnaaw kon président euh, Mahamat Idriss Déby ba mu waatee bërki démboo Ndiaye euh, fële ca palais de la république bi ñu ko falaatee ki nga xamante ni kon mooy alamaay alina moom mooy premier ministre gouvernement bi fanweer ak juróomi membre la ci ñoom am na ñaar fukk ak juróom-ñaar yoo xamante ni kon euh, ñoom ñooy ministre plein am na ci it juróom-ñett ñoo xamante ni soxna faati ay secrétaire d'état lañ leen waxaati ca Nations uni ak conseil de sécurité nam gën a gaawee tey danañ daje ngir waxtaanee jéye ji nga xamante ne Israël mu ngay wéy di ko def foofu ca bande Gaza rawatina kon lan amal ca Rafa muy ay camp de réfugiés yoo xamante ni kon ban leen bombardé daal image yi ñaaw na ñaaw goo xamante daal ki nga xamante nag mooy premier ministre moom dafa jàpp ni accident la muy Benjamin Netanyahu procureur bu CPI nee na fu ko gis nañ ko jàpp indil ko ko. jërëjëf Chérif bu nekkoon eh, xibaar yi biti réew yi jaww ji ak eh, météo bi c'est l'affaire de Oumy Samb et